auzu billahi min asheytan rajim bisimillahi rahmani rahim allahuma salli ala seydina mouhammad wasalim asalaamualeykum mbokku téléspectateurs yi salaamualeykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu sénégalais mën a nekk ci àdduna bi nu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko dalal ci kanamu télévision Futurs Médias bànneex la ci ñun mbégte la ci ñun saa su ne xam ne yéen a ngi toog jàkkaarloog ñun muy seetu euh, télé bi nga xam ne moom mooy miroir du pays bu nu waxee nag miroir du pays bëgg nañu ko ci ne di ca gis boppam macha allah. nu dooree émission bi nanu koy defee saa su ne mu jik ñu loolu ñu ngee nuyu bu baax a baax suñu président directeur général ak mbooleem directeur ci biir kër gi nu ngi leen di nuyu. di leen balu àq bu baax a baax ci tabaski ji wax nañ ko waaye ne nanu wax waxaat. dafay defal rek day defar macha allah te day rafetal diggante kon ñu ngi ziyaara ñëpp di leen baalu àq di ñaan yàlla yàlla yokk jàmm ci kër gi mën gi yokk yaa rabbi yàlla na nu musal ci luy yàq bu ko defee itam mbokk yi dinañu dem seeti sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada di di yeesal sunu cofeel ak sunu nuyoo itam di leen ñaanal yàlla bu baax a baax ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla sàmmal nu leen sàmm leen bu baax ngeen yàgg fi ci jàmm ak teraanga yàgg fi diggu ngeen njaboot gi ci jàmm macha allah ndax boobu ba tey ci ngeen ne yàqu leen ci dara moo tax nu ngi leen di gërëm di leen balu àq ndax euh, bu la yàlla defee nga jaboote xeetu doom bu ne di am xeetu taalibe bu ne di am waaye nag yàlla def leen def itam ay philosophe yéen lépp ngeen mokkal tabaarakàlla macha allah. xam ngeen ne bu xees am na bu ñuul am na ku baax am na ku bon am na ku njool am na ku gàtt am na da ngeen ko nangu moo tax yàlla def leen li mu leen def bu weesee loolu yàlla na nu leen sàmmal ñu daal dee dugg ci biir maison d'arrêt yi yooyu maison d'arrêt yàlla na nekk maison de repos ci ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñu ngey ñaan yàlla seen toogaay googu foofu yàlla na yàlla def ko mu doon yokkute ci yéen mu doon cangaay ci yéen ndax àdduna moo ni mel ku nekk ci àdduna di nga ñam ci yi fiy am yi fiy am nag léegi saay bu dikkee amaan na mu neex la amaan na du la neex waaye nag da ngay xam ne rek yàlla mooy dogal te bu dogalee ñun dañuy nangu ba noppi continuer di ko ñaan li nu bëgg moo tax yal na yàlla faj aajo yi ñu daal di dugg nag ci biir hôpitaux yi clinique ak dispensaire di ziar malaat yi fa ne waaye nag ci philosophie Eva ak mami Linguère rek ndoy baan feebar day aay na aayul waaye mi ngi gën a euh, aay nag ci boo ko xamulee boo ko mm. xamee rek dalay noppal boo ko xamee ànd ak ndimbalu suñu borom boo boo fajoo rek dana la wéral incha allah yal na yàlla wéral ñëpp yàlla bu kenn am lu ko naqadi ci kaw suuf yàlla na Sénégal gi jëm kanam suñu maam maam Cheikh Tidiane si dañuy baax wax dëgg yàlla di ko fàttali ndax nag dafay suñu référence doon suñu soppe ñu ngey ñaan yàlla yàlla dolli ko leer macha allah yàlla na leen yàlla yërëm moo képp koo xam ne fekk nga ko fa ak ku ko fa fekk yàlla na la yàlla defal jàmm ziyaar leen bu baax a baax ëttu Thierno Seydou nur Tall nu ngi leen di ziyaara waa kër euh, Cheikh na Cheikh Sadibou nu ngi leen di ziyaara waa kër Mam Baye Cheikh du nu leen fàtte mukk ndax sunu ay xarit ngeen waa cene ba sekkee ni kan euh, itam ñu ngi leen di ziar soxna Nogay ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Cambérène moom dafay sama dëkk mami Linguère di sama réew du ma fa gëj noonu laa koy waxee foofu sama fief la macha allah. Mhm. ñu ngi leen di ziara bu baax a baax a baax waaye nag Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke ak bépp xalifa yàlla leen yàlla yàggal nu wér lool ajaratu mami Linguère déwénati déwénati de déwénati ndax man xam naa li tax ndekete yoo journaliste yi bu nu amee information nu rakkaaju yàkkab di ko bind tey daf maa dal daf ma dal je suis toute contente ci bës bi may ñëw indi waaye dama lay bàyyi nga nuyoo ba xam nga maa ngi lay wax sànq ne la bébé Philippe dañ ko mus a jox benn kii. bébé Philippe Ndour. ah au lieu mu ne information xam naa moom mi da ko yàkkamte woon ko. ko yàgg a baax a ngi nii. ku yàgg ndooy bande ku yàgg jekk tagal. rafle jigul ndaanaan mm, mm, te nee nañu mbarakis des koo yeesal mbarakis bu rafetee dafay dafay rafetal solo nañu moytu mbarakis yi. di sol mais gisoo ko gisoo ko ni mu toogee nii. dëgg la dëgg la xam nga li ñuy wax naan. Euh, ku but euh, buteel bu nekk la mu def moom la kubéer ga di xeeñ man ndeysaan ma ko gisee sama xel day dem ci Cheikh Bass Abdoul Khadr macha allah borom këru soxna Uli Kébé ay dóor la <laughs> ak soxna Mbooñ Mbàkke ay dóor la soxna muslim baax moom ay waay ay dóor la ah. ay ca bisimilah non est-ce que du ay dëbb <laughs> nuyoo ay nag max la dara nag. dooy ma ni yow nuyool rek. dooy mënut ci man juróom ñaari salaamaaleykum na nga daan dooree balaa information bi di ñëw. mbaaru nañ partagé. li nga partagé leen partagé leen waxuma partagé dama ne sama partagé nag jàmm la. ah partagé leen ci jàmm. <laughs> bisimilah bisimilah Diop. déwénati leen waaw fekkeel déwén fekkeel déwén te ñëpp fekkewaati déwéni déwéni déwén yi gën a sell. dañuy door nañ daan dooreeti rek ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla mag neen son Mandela te ëpp koy jaloore waaye noonu la ñuy ziyaare mbooleem kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaan sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk ay leeram taas ci barkeem. amiin waaye noonu la ñuy ziyaare mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Al Mokhtar. Mm. ak mbooleem ak lu mbàkki yu gépp sukk ci suuf di yeesalaat suñu njëbb dogal bu baax a baax a baax mm-hmm. di ñaan yàlla yàggal leen fi te wéral leen ndax ñoom ñooy kenong mbaar mi fekk ñu ngi ci suñu kanam rek ñooy ñeme lu ñu song daan ko mm-hmm. waaye noonu la ñuy mm-hmm. la ñuy demee tamit ñaanal suñu maam Kamara Jibi Anta Boy yaa hajja moom it ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool lool lool maam yàgg fi loo fi yàgg doyul waaye noonu la ñuy ziyaare mama Kinushka yaay na fi ak waa kër gi yëpp ñu leen di ziyaar bu wér a a wér di ñaanal suñu yaay astu jara yow yaay yàgg fi loolu te wér ñu ngi lay baalu ak mère Ndooy ak yaay astu Seck yal na leen yàlla delloo si ci jàmm ngeen fekkaat fi njaboot bi ci jàmm te lu ngeen ñaan mu saawaan baawaan di baaluwaat ak Sénégal gépp nag Sénégal gépp ndax itam bés bu nekk ñu tooñ leen mm. ndax ki naan sarax sa biir kër te du la tàggu mm. te bu dikkee léeg-léeg mu wax lu la déranger wala mm. loo xamante ne day metti sa xol mm-hmm. ñi ngi sukk ci suuf te di leen ko baalu bu baax a baax di leen wax ne xëy na tooñ leen du li ñu tax a jóg ndax metti na lool di xëy di ñëw di dab seen bànneex mhm. waaye nit moo matul bu ñu fi toogee ba ba ñuy jóg lépp lu ñu wax lu ci jub suñu borom bi la lu ci dëng suñu mat matadik doomu aadama la waaye ñu ngi leen koy jégglu bu baax Eva nag bis bu nekk ak li muy àndal te nit bu gëmee yàlla lu yàlla teg ci kawam rek da koy nangu dañuy delluwaat waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jaalewaat mbooleem ak lu ndaam gépp waa looyeen yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen di jaale di leen jaale suñu nijaayu bopp suñu nijaayu xol jooju di tonton cheikh abdouloo bu sëriñ daam abdourahman loo ba bu sëriñ cheikh loo bu ndaam bu sëriñ daam loo ñu ngi koy jaale ak lu ndaam gépp ak ak lu mbàkki yu gépp ñu ngi leen koy jaale cheikh abdou nag di woon sama nijaay waaye di woon sama xarit yoroon sama tante fukki at ak ñett waaye bu loolu weesoo itam muy sama nijaay ñu bokkaat ndey li ñu bokka bari mm-hmm. mu wàcc liggéey nag keroog bisu tabaski ca ngoon xëy na sax looloo xaw a yàq sama sama tabaski waaye jaam bu dul may boppam lu yàlla teg ci moom da koy nangu di ko jaale waa ndaam gépp gépp gépp di wax ne fa mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jóge li mu fi bàyyi itam yàlla na ci yàlla teg loxo tonton Cheikh Abdou dëddoo ñu jàmm waaye loo defoo fi dara lu ñaaw xëy na kay wéetaay rek la ñuy jooy waaye xam nañ ne fa nga jëm ñeme nga ko ndax liggéey nga lu baax ba tey tabaarakallah leen loolu mboolem lu mu liggéey ci lu baax yàlla na ko wéttali ci bàmmeel amiin amiin booy piir sañu xoor bisimila nuyul ma Baye Baddo Dieng jaajëf <laughs> taalibe Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacke sañ sa rafet na jaajëf jaajëf mhm, macha jaajëf ñu ngi lay ziar ñu ngi lay delloo ziar di maam mhm. di leen baalu àq mhm. baalu àq gi da nga koy njëkkee ci ñi nga xam ne ñoom ngay xëy di toogal bis bu ne dëgg nga xam ne ñoom ngay xëy di dajeel saa ne di jaar kilifa diine kilifa aada ci réew mi yëpp. Mhm. dina ñaanal ñu yàgg fi lool te wér. di ci jiital sama sëriñ ba Cheikh Bass Abdoul Khadr. Ah, di ko ñaanal mu yàgg fi lool te di ko ñaanal taalibe yeeg ñëpp. Mm. di jaar waa Pire Sañoxor comme ni nga ko waxee. di ci mhm. jiital sunu sunu xalif ba sëriñ Mansour Cissé. Mhm. di rakk ci sëñ Moustapha Cissé mi fi jóge bu yàggul. ak kii di nga xam ne ki nga xam ne moo di sëñ Maodo sëñ Maodo Cissé. Eh, gis ngeen julli gi ci tale bi jullik waa kër sëñ Moustapha Cissé googu ak taalibe yëpp mm-hmm. di ziar sëñ Moustapha Ka moom mi nga xam ne moo jiite woon jullik murit ya tamit mm-hmm. di leen ziar baax ak moom parent ji bi jaañ ca wax ju sell ja ñu ngi ñaan rek yàlla nañ ko teew ay déwén yu bëree bari di ziar mu monsieur le maire Serigne Boub mm. ñu ngi koy ziar moom tam bu baax ak ki nga xam moo di Baye Bardo jang sëriñ Mbaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ñoom ñooy kilifay dëkk ba mm-hmm. ñooñu soo leen limee rek lime nga lim nga waa dëkk bi yëpp di di jaar ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi seetaan euh, ñi te nekk ci diaspora bi tamit ñu leen di baalu àq bu baax mm-hmm. Mm-hmm. del baalu àq waa Sénégal xam nga doy baan wax kootu mu ay toj rek la mm-hmm, yenn saa xam naa ni ma wax loo xam ne tamit du neex ne ñenn da ngay wax rek toj toj sous un fond de dëgg xam nga rek xam nga rek nit ñi moom soo leen am na ñoo xam ne soo waxee lu baax ñu meer soo waxee loo xam ne safaan ba ñu mer kenn mënul dab bëgg-bëgg ñëpp waaye tamit ñu ngi képp koo xam ne daal mos nañ laa tooñ mhm. ñu ngi lay baalu àq bu baax a baax képp koo xam ne mos ngaa tooñ ndoy baan mii ndoy baan lay baal àq bu baax ndeysaan ndaxte daal adduna bi moom kenn muccee nekk te doo te doo tooñ kenn mhm. waaye nañu mooy mooy nag nañuy moytu di tooñ dëgg la tooñ tooñ baaxul baa du baalu àq bañ a tooñ a ko gën bañ tooñ a ko gën dëgg la waaw parce que su tooñ jeexul xeex du jeex mhm. tooñ su jeexul xeex du jeex. te nee nañu itam boo bëggee sa xol sedd. Hmm. boo bëggee sa xol bañ a dëkk ci jeex. Hmm. na nga bàyyi di xeex saa su ne. Ah, ndax kuy tooñ ku la mën moom. coono du la wàcc. soo bëggee sax noppalu ci àdduna bi. Hmm. da ngeen nangu ndogalu yàlla. par exemple li ma leen di faral di wax ngeen di ree. ndoy baan mii def leen ko ni ko yàlla def. mu noppal leen soo leen ko deful ni ko yàlla def. mu jaaxal leen mu jaaxal leen daf ñuy daal dee sonal. léegi nag lool nag su fekkee nanguwoo ndoy baan ni ko yàlla def. ci tooñ ko ngay dëkk maanaam daal ci gàttal dangaa bëgg a wax kuy xool sa moromu doomu aadama na ko fonk dugal ko sa xol bi mhm. xam nga lu ma la ciy tegal mami xulool ak nit nga xool buy ñëw sa mhm. xol bi day fët fëti dëgg la man xaw ma xol la xaw ma dënn la xaw ma luy fët fëti mhm. waaye boo jubóog moom buy dikk day fekk yaa ngi ree di kaf di ree macha allah mm-hmm. ñuy jaale nag ni nga ko waxee rek sunu baay Ousmane Diop ji mm-hmm. Alaaji Yaxya Diop mm-hmm. ndax doomam bi mu tuddee baay Yaxya Diop maam Yaxya Diop dafa génn àdduna mooy accident bi ngeen dégg ci VDN bi ah, ñu koy jaale bu baax a baax famille Diop Yaxya yëpp xam nga ne Eva daf caa bokk macha allah di ko jaale sunu tante tante Xadi wax dëgg yàlla di ko jaale Astu Gueye ak Mansour Diop ak njaboot gi yëpp ñu ngi leen di wax sigil leen di gaale yàlla yàlla yërëm ko waay àdduna moo ni mel mbokki téléspectateurs yi wax dëgg yàlla bànneex la nu am ci dellu si waat jàkkaarloog yéen bu weesee sax baalu àq bi baalu àq bi du rek tabaski baalu àq dafa war ci diggante ay jullit diggante nit ak dëkkandoom mhm. saa bu nu yeewoo rombante ci couloir war na noo balonte àq ndax loolu mooy philosophie bu rafet waaye nag itam bu julli jotee ñu daal di tënkaat yëf yi teg ko gën a yeesal diggante yi gën ko rafetal lii gën a mën a sonnal doomu aadama daal man damay wax ne bokk na ci mer ak jàpp teewoo bàyyi maanaam jàpp dara muy naqadi sa xol te nga te koo bàyyi ndax boo nee jàpp teewoo bàyyi di nga dem ba ci ba ci ba ci côté boo xam ne amitié la jàpp teewoo bàyyi boobu baax na waaye jàpp teewoo bàyyi bi nga xam ne moo lay sonal mooy nga xuloog nit ba noppi bañ ne doo bàyyi histoire bi mhm. mami da nga sonn da nga ñaaw da nga jaay xaalis sax doo xam loo jaay xaalis mami xam nga yooyu yàlla daf mhm. koy def mhm. kon bokk yàlla nu yàlla jéggal sunu ay bàkkaar baal nañ leen baal leen nu àq ni wax na ko sànq dañuy xëy ne sarax seen biir kër léeg-léeg nga gis ndey ju jékki-jékki gestu doomam ne moo waay xanaa sama doom jéem a dem boole Eva Tra wala mami wala ndoy baan nga gis baay boo xam ne mi ngi jaabante ci biir kër gi di réfléchir est ñun dañu yëg li mu fanaanoo ah, waaw yooyu yëpp dafay dee am ci émission wareef mhm. moo tax it seen ay wootee daf ñuy amal solo lu ngeen ñu wax dañu koy nangu ndax ñun ni ñuy duggee seen biir kër baaluwaat nañ leen àq bu baax a baax a baax yàlla na yàlla defal nu salaam defar diggante yi rafetal ko li may wax keroog ci ci euh, déwéna ci leen ci Papa Cheikh Diallo mm-hmm. ma ko yàlla na yàlla dolli ñu jàmm ne jàmm am na ci Sénégal ba noppi waaye nag euh, euh, Kouthia yóbbanti àq la nee na moom wareef siri la ko yéene mm-hmm. ndax moom daal wax yéen da ngeen yi ngeen fii réglé dafa metti mm-hmm. te ñoom ñooy neexal affaire yi mais ci en fin de compte nee mën na noo dem mën na noo ànd ak moom. pour ñu dem Syrie waaye Syrie la ñu doon yóbbu de ni. <laughs> fële ca kii Bachar al-Assad. <laughs> waaw loolu mais moom man jot naa invitation bi. Ah. mais xam nga li Soda bu sa wax lettre boo gis bu nekk dafa am sous couvert de diw. moom lettre bi sous couvert de Kouthia Alaaji kii Samba Sine. dafa ñu ci sax Kouthia kese Samba ah, Sine. ah waaw bekk suukar andaaru lem. waaw moom lañ ci def. waaye daal mën na dem rek amul problème mën naa yóbbaale mbay. <laughs> mbay mën na demoo. noonu ñun après dinañ topp ci ginnaaw mais xam nga ko dañu lay xaar moom mooy dem kii terrain man damaa yor njaboot gu ndaw ndoy baan balaa noo dem rek ci mbokki téléspectateur li yëpp ci déwénati la bokk ndoy baan hmm. da naka lañ ko daan waxee ko mariko ko mariko am na benn xale waaw yow réer le woo dara kay li ma réer le <laughs> li ma réer le bari amul koppar gu takku keroog ankay gis naa la nga jàbbante bay bëgg dee waaw bëgg nga ñëw fekk ma ma toog ndeysaan yar yar jàpp la mën sañoo maa jiiñ ngay raay dox ko bi gis naa lépp nga jàbbante dem ñëwaat taxaw xool ma ni la looy seet nga ni ma dara maak Joséphine hmm. ku fekkee sàcc kooku lal la dañ koy boole euh, dañu koy àtte moom tam waaw ah, ki fekkee sañuy sàcc waaw waaw d'accord ci complice la moom complice la comme niñ naan da nga sàcc dem jaayi keneen kooku receleur li gën a garaaw sax li ma réer la noonu waa moom <laughs> ma ko de li ma réer ko <laughs> boo ma laajee danaa la wax sàcc bi nu mu mel ah doy sàcc bi moom dafa kees dafa kees tey dafa xëy mu sol mu sol basin bu bulo léeg-léeg mooy sàcc sama caabi oto yi <laughs> sa sàcc bi ah. jàppal ni jigéen bu kees la te jigéen bu ñuul moom moo ko teewe woon mu ne ko demal nga ñibbi lew na la xam nga li may wax ah? xam naa li ngay wax waaw. sa sàcc bi moom bii la toogee. mais li ma jaaxal dafa tëb rek teg ca sac bi ne allah akbar. li yàlla dikk na sama ah. yàlla dikk na. la ngay seet keroog. Hmm. ci loxo gën a ji la tàbbigee. Mm-hmm. daf caa dëpp saaj bi ne awa sarax ma ngir yàlla bul wax dara. waaye xam nga lu ci moom lew na ah. génn fekk buntu kër gi fees dell. ñu lay xaar <laughs> ku nekk dama yow laay wër ci tabaski gi ba ne sàcc alalu loo ma ci tegal nee nga taw gi taw bi dóor na ngay bëgg de taw bi soob ngelaw li ma ne ay waaye boobu bee rëy <laughs> nee na mu jékki-jékki faxastalu ne teel ci suuf ne moo man sàcc bi <laughs> non alal mu doy baat ko lekk mais bala nga koo lekk coono bi nga ciy daj téléphone bi ngay commencé ndeysaan mi ngay commencé. ngeen jëf mbokki télé waa mami famille dajale leen gaaw ñu fay fay leen Ndoye Bane xaalisam ne li ma bëgg a wax ci gàttal mooy mami dafa sàcc Ndoye Bane te sous les yeux de Eva li ma jaaxal mooy xaalis bi yaa ba ko maa fekkee moo ko moo gën a waaw mais xaalis bi yaa ba ko jottali déedéet man dama gis bi yeey bees tàq ma ne ah waaye yow lii lu mu doon mu ne ma sarax ma ngir yàlla kon doy daan moomee rek def ko asaka ba ma ma yóbbaale ko noonu la wàccee ngay jàbbante fii bay bëgg dee mais yow li ma jaaxal mooy ndooy xam nga kiñ jaay alalu sàcc gi kooku receleur la waaye ki accompagner sàcc bi caat laay dégg mu naan nga yolos yolosi ne accompagner na sàcc ñi ci téléphone non defal naa rek fi may jëm nag léegi nag moo ci xaalis bi jox ma man ma teg ci sama sàcc mooy directement <laughs> dañuy indi nag tey mbokku téléspectateurs yi wax dëgg yàlla lii yëpp ci déwénati la rek ndeysaan ndax ay nit bu ñu dee ànd dañuy kaf dañuy ree dana rafetal lu bare dana tax ku jàppoon dara danga ko bàyyi ne àdduna amul solo bu ñu waxee ma ni leen àdduna tukkeegul ku dem yaa yow la sa àdduna tukki waaye àdduna fa mu desoon mi ngi fay des ba tey macha allah noonu rafetal lépp ne àdduna amul benn solo eh, mbokki téléspectateurs yi dañuy ñëw nag ci thème bu am solo macha allah thème boo xam ne boo dee xool bàyyiwul lenn da ngay juddu ci kër gu baax bokk fu baax def lu baax sa àdduna yépp yàlla may la benn doom boo xam ne wax dëgg yàlla xamoo noo koy def xamoo noo koy génne ci société bi mhm. fu mu jaar yaa ngee laaj naan mbaa gàcce lu ma xam nga ne nattu dikk na ci yow nga nekk ak sa jëkkër di ko sëyal bëgg ko lool macha allah di góor góorgóorlu ci boobu sëy saa boo xëyee gën ko mën a rafetal waaye moom saa bu xëyee ñaawal ko xanaa nattu dikk na mhm. nga am sa doom jur ko fa nga ko war a juree mu dem ba toll ni mu toll mënatul daa laago bët ya tëju tànk ya doxatul feebar bu metti dal ko xam nga ne nattu ñëw na nga daa dee am sa alal ba mu bare lool ba ñépp teg ci bët jékki saay amatoo dara pasuka rapide sax bu nu la ko mayulee doo mën a dem wax dëgg yàlla xam ngeen ne mbokk yi nattu dikk na mm-hmm. munoon lañu ko liim di liim di liim di liim nga teg sa société jékki-jékki société ba daa dee fayit ah wax dëgg yàlla nattu dikk na tamit mbokk yi mm-hmm. nga nekk ci kër bëggoon a am doom lool yàlla dogal amoo doom nga def fa fukki at ñaar fukki at ñaar fukki at ak juróom ba yàlla yàllay dogal ma soo fa jur doom ku nekk ak yow bu xamul àdduna dafa naan yow a day fàtte ne sunu borom mooy maye. Mm-hmm. moo ne xeetu nattu la. nga bokk ak nit ndey ak baay ngeen di xëy saa bu ngeen jàkkaarloo mu mel ni dañoo dugal seen seen xol yi safara boobu nag sax dañuy taxaw daa dee wax ndax nattu la ndax tayeef la wala nit ci dugal loxoom waaye ànd ak lu mënti am ñun nitu simple dañuy wax ne xeetu natt yi dañoo bare mhm. xeetu natt yi nag bu nu baree mbokk yi faw dañuy waxtaan gis ngeen léegi saa yi dañuy wax ne wax bu bare baaxul déedéet am na yoo xam ne boo koy dund faw di nga dem seeti ku mel ni tabara si la nga moom nga waxtaan ak moom di nga seeti koo xam ne macha allah mag la ci biir koñ yàlla baaxal ko lool nga dem dénk ko sa bopp. Mhm. nañu bàyyi di noppee yenn yi noppee yenn yi daf ñuy gaañ nga dëkk ci kër mami li ngeen. wallaay sëyal nit. Mhm. jëkkër goo sëyal mu dee. Mhm. xam nga kooku nattu nattu sunu borom la xeetu nattu yi dañoo métti lool te mënoon naa toog fii di ko mhm. liim di ko liim di ko liim ba ngoon ñu daal dee ñibbi mhm. te te te du jeex yéen ñii seetaan xam naa ne yéen a ngi dëggal ndax xam ngeen ne li ñuy wax ci xeetu natt yi yéen nattu yi xam ngeen ci dara yal na ñu yàlla defal jàmm mami di ngeer yal na ñu yàlla mën a muñ loo yi nga xam ne ah. moom moo ñuy dal mhm. parce que am na yoo xam ne bu ñu dikkalee bu ñu muñul rek dañuy teel a jóge ci àdduna mami di ngeer te àdduna tukkeegul ni ñu koy waxee saa su ne ajaa li ngeer bismillah nattu dafa am nattu daal ndogal am ci nattu dafa am ndogal am dafa am ndogal am dëgg la waaye nag ci nat ci biir nattu yooyu ba tey ñu ndey ak baay xam naa ne ñoo bokk ndey ak baay parce que du ñu soree ndax man boo nee ndogal rek ma yóbbu ko suñu borom waaw te barki démb bi ñuy bi ñuy wax nee naa la mm-hmm. xëy na thème bu ci ñëw noonu la mooy yow boo ko yëkkati da nga naan xëy na dafa ndaw dëgg la waaye boo ubbee ba ci biir ngay xam ne ndekete yoo te dem na sax ba egg foo xalaatul woon yow mi koy tàmbali dëgg la gis nga euh, am na ci nag natt boo xamante ne nii léeg-léeg loxo borom da cay ne ce que am na ci natt boo xamante ne itam léeg-léeg nit a koy tàmbali dem ba ca biir attanatu ko mu far nekkum nattu ci moom mooy que ba mu koy tàmbali danaan mm-hmm. maa ngi koy def dama koy mm-hmm. def par feeling wala dama koy def par lii wala par laa mm. dem ba yàgg nag mu far nekk ab nattoom mm. waaye bi ci yi ci gën a fës lim nga ci yu baree baree bari mm-hmm. am na ci itam sax yu baree baree bari yu des yoo xamante ne xam naa ne lu ñuy gën di dem muy gën di ñëw waaye xam nga ku la gën a mën ci nattu mooy ki nga xamante ne rek moom da koo nangu hmm. yanu ko rek mu nangu ko bu ko nangoo mu woyof ci moom bu ko bañee mu dis gann ci moom nekk aw sambalam hmm. ndax nag li yàlla teg ci sa kaw te mënoo koo dindi te bi muy dikk tàggu la te buy dem du la tàggu nangu ko dëgg la boo ko nangoo mu noppal la hmm. mais am na ci nattu yu gën a fës yoo xamante ne ni nit ñaa ngi koy dund di dem ak moom ñenn ñi nag nanguwuñu ne nattu la bu leen dab dañu koy daal di jël daal di koy jiñ ab liggéey daal di koy jiñ xar xarga fuufa daal di koy jiñ ay rab mm-hmm. dem ba ci natt boobu noonu dana leen yóbbu bañ di ci dépenser seen alal dëgg la ci loo xamante ne mënoon na ñàkk nattu dal la ba pare ngay jógaat di ci dépensé waat sa alal am na ci ñoo xam ne nattu dal na leen dem ba dugal leen ci xërëm ak njabar goo xamante ne ah, ma ngay yàq seen àdduna ndax dem nañ ba seen ngëm yàlla deñ na mm-hmm. te moo ne xanaa xamoon ne ndegam ñun ñii di jeeg mm-hmm. ñoo mën a dem marché nduggi mm-hmm. ñëw togg ne ba lañ koy yàq dañ koy yekk ci bool bu set dañ koy yekk ci bool bu sell mbesmaa yàlla suñu borom du togg toggam ba pare di ko yekk ci bool bu tilim dëgg la yàlla bu la naree yan daf lay téeñal am na natt yoo xamante ne suñu borom a am lu muy raxas la fa nekkoon waaye nag boo xaarul nattu ba ba mu jeex mm-hmm. lu dul nag nga bëgg koo yàkkamti bëgg koo parax-paraxee mm-hmm. cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba suñu yaakaari tey ak mm-hmm. ay ba ko génne ci dëkk ba a ba mu ba dellu si yaakaar moom la ñuy añee ñun ba tey te jeexagul ndax suñuy sëta ki sëtaata ba sëtaat te la ñuy añ ba nëg ni te bokk na nag ci li boo indi jàmm ji ci réew mi kon am na natt yoo xamante ne boo ko muñee ba yegg ca cat la dugg la tinel la nag booy dugg ci bunt bi dugg nga waaye bala ngaa seen beneen côté lumière ba fa muy mm-hmm. boo yàkkamtee dangay ngay dëpp boo gëmul yàlla dangay ngay dëpp doo jot ca pay ga moom la ñu naan nattu dañu ko ragal waaye bonul ne saa bu dikkee am na lu mu fànk wala mm-hmm. am lu mu yokk macha allah mm-hmm. yal na nu yàlla nanguloo foofu lañ koy teg de mami wallaay bu nu nangoo ndogalu suñu borom rek dinañu noppale ko ndoy baan mm. xam nga ne wax dëgg yàlla jigéen boo xam ne lu mu jur mu dellu <coughs> loolu nattu la bu lu mu jur bu jógee ca hôpital ba nekk ca këram doom ja dellu boo toogee ak mu ne moo waay mbaadu kii dañu koy tooñ axan tey nan ko waxee noonu parce que ñun noonu la ñu mel moo waay kii xamoon naa ne sëyam bii nga xam ne baayam d'accordul ndeyam d'accordul nangam ak nangam du fi am doom ñoom ñaar mënuñoo ànd xamoon na ne du fi jur doom nga jur doom joo jur mu feebar nattu sunu borom dikk na ndoy baat bismillah <laughs> jaajëf c'est que nattu tur yuy tur wolof la mm-hmm. soo ci biir nattu am na natt yàlla moo lay natt. Mm-hmm. cey di natt sa ngëm-ngëm. Mm-hmm. est gëm nga ko walla gëmoo ko. Mm. mu jara jël dara teg la. mu jël dara lu metti mm-hmm. teg la ko di la xool ndax gëm nga ko. su ñuy wax nattu nattu bu metti bi moo tax ñuy wax. dëgg la yàlla xañ la loo waroon a am. wala yàlla xañ la loo amoon. Mm. wala yàlla teg la loo xam ne tey jii moo xam jëkkër ju bon. diis nattu la jabar ju bon. nattu la kër doom ju bon mm. nattu la mm-hmm. am njëkkee bu bon mm. nattu la mm. goro bu bon nattu la ngay liggéey ba yàgg ñu dàq la mm-hmm. ah te defoo dara nga jékki-jékki ñu dàq la nii rek nattu la fekk sa bopp prison te mësoo ko xam oh, c'est ça yàllaa ngi mesurer sa ngëm yonent yàlla yusufa yàllaa ko teg nattu mm-hmm. di xool ba xam kii gëm na ñu dugal ko ca teen ba mu génn ca ñu génne ko ca teen ba yóbbu ko jaay ko dugal ko prison la ko dugal prison gis nga yàlla nattu na ko ci jigéen mm-hmm. gis nga la ca xew ba mu duggee ca prison ba ba mu génn ca prison ba ba génn ci natt ba gis nga na mu demee mm-hmm. nit ñu baax ñépp ngay gis ci àdduna bi yeneen yi fi jaar yépp jaar nañ ci ay natt sunu wàll yu baax yi ne ci réew mi yëpp jaar nañ ci ay nattu mhm. muñ ko génn ci moo waral tey jii ñu leen di sukkal ak di leen raamal dëgg la nat nattu moom soo ko génn soo ko nangoo mhm. am ci résultat mhm. waaye soo ko bañee am ci pertement te sunu borom moo lay seetlu di la nattu léeg-léeg euh, tey jii nga nga nga nga sa sa sa patron di la seetlu ci dara teg la benn nattu di la seetlu xool ba xam nooy def soo saalitee mhm. mu xam ne kii du waaja mhm. soo ko mu muñee nag mu xam ne tey ji mën naa jékki-jékki mën nañoo jékki-jékki rek affecté la Tamba mhm. di xool ndax ndax kii nii euh, employé bu baax la wala ñu emploi euh, euh, affecté la ndar wala ñu affecté la feneen nga commencé ñaxtoog def ñi nga xam ne yow mii liggéey peut-être liggéey taxu laa jóg dëgg nit mën na laa teg nattu oh fekk yàlla moo ko jaarale ci nit kooku pour mu teg la natt natt boobu ngay xeex ak nit kooku fekk yàlla la parce que yàlla wàccul di ñu teg natt yi oh. da koy ci ay ay da koy jaarale ci ay nit tey jii mën nga ni bërit ni xaaral ma ñu dem dem dem dem ndar ni bërit sa oto yi sa oto paan yàlla teg na la nattu te nga waxoon fag nit lu wóor ne ko sàngam danaa agsi teg na la nattu te bu neexoon yàlla mu dogal leneen itam c'est ça tey su yàlla mënoon na laa bañ a teg nattu boobu nga dem accident ci yoon wi des fois am na natt yoo xam ne mu day gën nañ ko dañ koo ragal am na natt yoo xam ne day gën dëgg la dëgg la par exemple tey jii yàlla dina jël nit dugal ko kaso wallaay su nekkul su duggul woon kaso lu bon lu faatu fii ci mm-hmm. ci ci ci ci biti moom laay wax de waaw waaw dafa newul woon nekk ci leneen lu nu gënal waaw c'est ça te di yonent yàlla Yuusufa moomu tey su ko yàlla dugalul woon kaso mm-hmm. mën naa nekk ci leneen loo xam ne neexul suñu borom ci jabaru buur ba mm-hmm. est-ce que du yàlla da koo bëgg a sauver tax mënu ko xaay kaay ma dugal la fii bu ñu toogee di ko fàttaliku bu ñu toogee fàttaliku taarix moo tax mu def ko yonanti yàlla Yusufa oh, oh. dogal ca moom la mu dogal yëpp wàcce ko c'est ça macha allah yooyu yëpp ay ndogal la mën na euh, président de la république sax nattu la ndax ku xool Sénégal ni mu rëyee hmm. xool dëkk bi li fiy xew xool yi lijjanti koog yi lijjantee koogul ne la ñëwal nga xool nga nga jiite dëkk bi mhm. natt bu mag a ngi noonu waaye nag bu dee Eva Tra la buñ ko falee président dafay daal dee commencé di tàccu boppam di kontaan ñu ne la dikkal nga nekk ministre ma xamal leen sa mbokk téléspectateurs yi ne à tout moment mën na noo arrêté lii ndax xam ngeen ne dañuy dem ci remaniement wax dëgg yàlla buy waaj am te Mamadou Ibra Kane mi ngi ci liggéey jéego bu am solo macha allah waxtu bu ne nag mën na noo ñëw euh, mm. yemale fi émission émission bi dugg ca moom ndax wax dëgg yàlla danoo bëgg information yi ngeen koy am ci heure bi mu waree am wax dëgg yàlla waaye maa ngi doon wax ma ni président de la république sax ku ko yàlla def xam nga ne nattu la ndax kur sañoon da liggéey sa liggéey bu yemamaay mhm. bu ngoon jotee nga sangu ba set tëdd sa wetu soxna mhm. waaye man Mariam Faye Sall laay laaj ndax ñoom dana nu nelaw ba yandoor mami Linguère sama xel fa la dem de est-ce que dina ñu li nelaw ba ba yandoor bañ a bañ a fa euh, euh, ne tey daal y a pas de problème parce que nag wax dëgg yàlla pale ba tam war na xumb de mami Linguère moo gën a xumb fu mu ne nii tey jii ku ñoo wàccee bokkoon na ci sa nattu nattu àdduna ministre yi wàcc bokkoon na ci yoon bi charte bi lii la da ngay diw app bi bu jotee diw mooy euh, yéeg app mooy wàcc xam nga lu tax mami yoon boogaay bii fi nga toog nattu la de non da ngaa dégg sax doon métti ci Eva Tra mu bañal la toog bi ngay wax waxum président. waaw dama ne la yéen ñii. Mm. fi mu ne nii réew mi yéen a fi ëpp nattu de toog nii yéen a fi ëpp nattu. nattu weesuwul suba goo xëyee tàbbi ci biiri bët yoo xam ne xamoo ñaata lañu. dëgg ndeysaan kii yor na làmmiñ wu ñuul kii yor na làmmiñ wu weex. lii la wax lu baax. kii yéene na la jàmm ba buy wax ci yow day jooy. kii yéene na la safaan ba buy wax ci yow day giñ fa giñ gën a aaye di ñaan yàlla nga coroxaan baa li ngay wax bu yegg am na ci koo xamante ne xamoo ko mosoo koo gis ma ngay jël ci wërsëgam di def ci yow ngir bul mën a tee am na ci koo xam ne ma ngay ñaan ci yàlla yàlla na sam xel dem am na ci ñoo xamante ne ñu ngay jël seen kurus tëdd ba deux heures du matin mm. ñu jóg toog di la ñaanal te xamoo leen am na ci ñoo xam ne boo tasee ñoom dañ lay téye di la ñaanal ba sa rankoñ tuuru mm. te xamoo leen am na ci ñoo xam ne ñu ngay sakkay di la sàkkal sarax te leen nga taseeg jonga bu la dàq fuuf mhm. mu droité otom ba mu jekk mhm. daal dee dikk fóon la mhm. wax la wax bu neex ne la yaa ngi sama xol boole ceeg ko nattu moom it boole ceeg nga taseeg jongoma joo xamante ne xëy na ah. fa mu tëdd a gën a nooy fa nga tëdd téeméer junni yoon la muy dawal a gën a nooy la ngay dawal dëgg la mu ñëw diis la ci boppam nattu boo xamante ne mm. yow nga encaisseel ko ko moom mu yenneeku ko waaye teew ko ba ngay dund dund goo xam ne ku ko seen muy dem mu yaakaar ne ma nga ca jàmm xanaa xamoon ne looy ñeewee nit ñeewewu ko boppam ci tey yaa ngi wax ñi nga xamante ne tey ñoom lañ war a génnee ci gouvernement bi ñeneen war a dugg mm. c'est parce que yàlla lu mu bind dafa am fu mu ko yemale loo xam ne ba mu la koy jox tàgguwu la bu la ko xañee bu ko jooy mm. ndax dalaa romb ñu nekk ci 14 millions bay waajal 15 ndax mm. ndooy nee na am na 1 million bu ñu xamul kon ñooñu nañ leen di sóoraale yàlla génnee la ci yow ci saw askan mm. ba nga juddoo ba nga ni kenn ku falu génnewul ci saw askan yàlla génnee la ci yow ngay kenn ka mm. mu teg la ci fa mu la def la sa biddeewu askan def la sa biddeewu askan mm. nga daan ca dimbalee daan ca suturaalaate daan ca defante lu baax yàlla tegoon ay nit ay nattu ñenn ñi feebar nga teggil leen ko ci diggante bi nga faloo dëgg la ñenn ñi amoon problème fu ñu dëkk nattu la woon nga teggil leen ko mm-hmm. ndax nag bu ñu fàtte ne nattu weesuwul ñàkkuk sol ñàkkub dund mm. ñàkk foo dëkk ñàkk xam-xam ba ci ñàkk xam-xam yàlla da koy nattoo doomu li nga wax daf ma delloo tuuti ca gannaaw ndeysaan mm-hmm. jamono ya may def elles sont toutes belles laa koy yóbbu mm-hmm. damay def elles sont toutes belles def elles sont ba mujj bi ma saturé mm-hmm. ma dugg nànk ci biir bureau sama kaaw Alaaji Njaay maa ngi koy ziyaara bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm moom ak soxna Mariam di leen jaale ci li xew ca kër ga yàlla na yàlla woyafal ma dugg dugg bureau ba ma ni man daal damaa sonn daal dama bëgg a damay dem noppaliku. Mhm. kaw elage mu baax mi ne ma awalu xew ma ne ko du dara. damay dem noppaliku booba yàlla bindoon na ne. danaa def elles sont toutes juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at daa dem noppali. ku ma waroon jeex dafa waroon jeex mhm. li tax nit ki léeg saay bu ñu la dénkee dara. Mhm. ñu ne la ministre nga woon wàcce nan la. député nga woon mujj na demee nangam ak nangam nga daa dee mer commencé indi xiiroog ngaa yow dañ koy gis. yow yaa nekkoon PDG wu telle place. yow wàccee nan la nee nañu nekkatoo ko nekkatoo ko du simplement de nekkatoo ko ca sañu borom parce que dafa wax ne bu àpp sàngam jotee. Mhm. da ngay da ngay daa dee wàcc. moo tax gis nga euh, mami Linguère. Mhm. ñu ngee ziyaara bu baax a baax sunu ay sëriñ. kenn du ñi nga xam ne yàlla daf leen def nitu diine mas nga gis gis nga yàlla dafa juste mami mhm, Linguère mas nga gis nitu diine bu ñu ne wàccee nañ la dootoo nitu diine. ancien sëriñ allahu akbar. waaye moo tax ancien sëriñ mas ta moo tax ñoom itam. Euh, li ñu yor alhamdulilah ba suñu kilifa diine yi ci bari xamee ñoom li ñu yor. dëgg la ndax Cheikh Abdoulaye dafa waxoon ne nguuray daw wut si leen waaye yéen daw leen. wuti yàlla lu ko yàlla fayal. koo xamante ne nii bu ñu tëroon dara di ko rendi. dëgg yow boo jubee ñu teggi loola. dëgg yow war ngaa xam li nga yor lan la. dëgg la di nga dégg ancien président. Mm. di nga dégg ancien ministre. Mm. di nga dégg ancien DG. di nga dégg ambassadeur di nga dégg leneen. waaye ancien sëtub Serigne Touba wala sëtub maam Alaaji Maalik mm. kenn mosu koo dégg kon ñoom li ñu yor ñoom itam day lu rëy loo xamante ne mm. bu leen kenn nguur tax leen a fëkk wala mu dugal leen ci leneen maanaam bu ñu nam dara ci gàttal non ñoom waru ñoo nam dara xam nga lu tax mm. lu fi waaye yor ba di ko tab-tabee ñoo la ko jox dëgg te damay dégg sama moo du mbay sàmm naan ki tax taxal ki tax nga tax ba tax bay tax taxal mm. bu tax yi taxee taxawal ne ko yaa tax kuy wut ki tax nga tax bay tax taxal bu tax yi taxee ne ko yaa tax kuy wut nguur du ci ñoom nga jëm te boo dikkee dangay sukk waaw summi sa mbaxana summi say daal raam lamb li sa poos jox leen boo jeexalee jooy boo juree doom tudde leen boo fi amul woon ma téléchargé la àggali mais sa connexion day faible su boobaa ndax damaa xaw a gis damaa jënd réseau nag fan xam nga ay yooyu yëpp waaw kon ñoom yaakaar naa ne fa ñu tëye moo dëgër dëgg la tey kuñ fi fal ci réew mi ak fal goo mën di am bala ngaa tëdd di nga seeti sëriñ Sidi Maxtaar dëgg kuñ fi fal ci réew mi ak ndomba loo mën di am bala ngaa tëdd di nga seeti suñu maam ju baax jee maam Abdoul Aziz Dabakh euh, al amin ko seeti balaata ngoon balaata ngoon di jot di nga dem seeti ko mm. di nga dem seeti suñu maam ji fii ci Yoof di nga dem mm. seeti keneen kon ñoom ñoo yor nguur goo xamante ne du jeex abadan ndax nguurug yàlla ga ci la tibb abal leen ci goo xamante ne nii dañ naan rek sëriñ bi làqu na waaye du duñ ne mukk nguuram jeexoon kon ñoom itam ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci ñu ndaw ndawaan mm. nañu sóoraale loolu xam ne lu waaye am natt bu mu rëy rëy rëy loo mën di doon danga naan ma dem seeti sama sëriñ ak ay dëgg ndoy baan tey bu milliardaire bala muy fanaanoo milliard bi moo dafay dafay rafet dafay rafet ñun itam ñu noppal suñuy sëriñ ndax saa su ne nga indil ko natt bu bees bu la dal dana ñaan ñaan njekk ñaan njekk ñaan njekk ba mujj bi moom ci boppam du xam lu mu lay wax mhm. ngal la nanu noppal suñuy sëriñ mhm. nay mam yi di nga am taalibe bu dëng nag mu mel ni taalibe bu dëng boobu tam yàlla daf a mais jox bu mel ni Eva Tra mais am na ci sëriñ soo xam ne boo ko nee solal boo ko rombee fële ma nga def brushing am boo ko rombee fële ma nga maquillage ba bañ. am na seeni nattu seeni taalibe la. cey ndax xam nga lu tax. Hmm. taalibe boo xam ne fu ñu nee ne 10 ans 12 ans sa taalibe la. Hmm. lu mu doon def da doon jaay yàmba. Hmm. ku gàttum xel ne jox na ci sëñ bi àddiya di. lu mu doon def da doon jaay taxawal de taxawal de. ku gàttum xel. danga ne sëriñ bi lekk na. te danga naan sëñ bi yëgoon na ko bàyyi ko ci. sëñ Modou oto mos nay dem ba yàgg mu ne tëll ne waaj waaj ne tëll. fëgg mm. kii bi baare oto bi. Mm. ne dañuy yalwaan. Mm. fu ngeen jëm ñu ne Chikori dañ ko yóbbul sëñ bi kañ nga ko gëj a gis mu ne démb ñoo sëñ bee nekkoon yóbbul nañ ko. moom la jàkkaar lool de. daa mujj wàcc mbëkk fa waa dóor ko ba muy bëgg a dee. ab sëriñ léeg-léeg buy digle ñu te daa war laa waaw ndax boo lëggee nga mën koo teggil nattu bi nga ko teg bari na ci ñoo xamante ne seeni nattu seeni taalibee leen ko teg waaye destin destiné waaye nag yenn xeetu nattu yi mu mel ni nit euh, euh, euh, suñu loxo mi ngi ci suñu destin mhm. doy baan gis nga suñu loxo Eva tey boo fi bëggoon bëgg benn xale bu jigéen léegi da ngay daal di bëgganteeg moom xam nga yaa ca def sa loxo yàlla daf dafa mel ni suñu borom itam mami mhm. yàlla ak silwise <laughs> moom dafay toog rek say bëgg-bëgg mu la ciy topp allahu akbar da ngay gis benn xale ci benn koñ mu ne moom moom PDG la bëgg a nekk mhm. tey moom dafa bëgg a mel ni président Youssou Ndour mhm. waaye bu ci téye jàpp ci noo def yàlla defal ko ko moo tax nanu nanu yaraat sunu bopp parce que ndoy baan yàlla dafa lay buux ci la nga bëgg mhm. ak a mën a topp nit léeg saay ci lu ko neex ngay ruube rek mu topp la ci nga naan nga naan yaay waaja boobu sa bës a ngi ñëw gis nga Eva mm. nattu mënul weesu nga nekk njiit ah dëgg la. ak njiit lu mu mënti doon nag. moo xam président réew la. moo xam taaw la. moo xam taaw la. moo xam jiite émission. dëgg mm-hmm. xam nga jiite rajo. wala télé dëgg moo xam nga jiite ASC. E. xam nga jiite julli. Mm-hmm. moo xam nga nekk euh, sëriñ ñu ni ñëw. xanaa xamu ni dara gënal garaaw jébbal naa la sama bopp. ba nga ne jiite julli damaa tiit. waaw. jiite julli responsabilité bi ci nekk nekk imaam responsabilité bi ci nekk. ay nit ñëw sukk ci yow ni la jébal naa la sama bopp ala àdduna ak alaaxira allahu akbar loolu hmm. nattu la hmm, bu réyëree bu garaaw nga ne ko nangul naa la ko hmm. responsabilité bu garaaw la sa maanaam maanaam na ci sa kaw waaw ci sa digganteeg sunu borom yàlla na ko yóbbu fu baax yàlla na nay fekk nag mu doon kilifa goo xam ne mate na ko kilifa goo xam ni lim la lii la sama sëriñ bi di dee la digal déel déel de nanga nanga nanga nangoo nanga nangoo jaamu yàlla mhm. nangoo liggéey tey moytu tooñ moo tax ku sa sëriñ toppaloowul yàlla perte nga de voilà teg ci yoon yi mm. sëriñ si duñ la jàpp ni la kaay naa ngi nii dugal la fa de oh. moomuñu ko bañ koy tabax fekkewuñ ko ñoom sëriñ si waaye xam nañu yoon wa xam nañu yoon wa uh-huh. xam na ni la tali bi soo ko jubalee directement pale nga jëm dégg naa tali boobu soo ko wàccul di nga dugg ca pale dëgg la waaye su fekkee dalaa teg ci tali bi mm. ngay wut fooy jàdd mm. naa xaaral ma jàdd fii xool ndóoy baan mm. xaaral ma jàdd fee soo jàddee bu ci kàmb tamit bul ni sëriñ ba tegu ma woon ci tali bi yow yaa jubadi yow yaa jubadi te dëng voilà sëriñ bi ni ma la àjjana yi suñu borom je ba mu koy tabax kenn joxu ko sémaak sémaak ndox waaye waaye ah. waaye sunu kilif wàll yi fi ne dañoo xam yoon wa yoon wala fa yóbbu lañ xam yoon wa nag suñ la ca tegee mooy dina mën na soo leen soo toppee yoon wi. Mm-hmm. dina di dem ba nga xam ni foofu. foofu la mais su fekkee dañ laa caa teg nga wàcc yoon wax mm-hmm. dugg ci ñoll wi. Mm-hmm. ñoll wi moom koo ci duggee loo soo ci duggee maanaam wàcc yoon wi jaar ci ñoll wi. loo waddal du feeñ. doo daje kenn. te kenn kenn ku lay seet du la gis. waaye soo toppee yoon wi. di nga dajeeg ñu baax ñi. dinga nga dab ñu baax ñi. moo tax ndoy baax nga fa nga war euh, li nga wax dafa ma delloo gannaaw tuuti ñuy taxaw. ne naa dana jafe loolu ngay wax ci sene dëkk bu mel ni Sénégal. Mhm. Euh, waxuloo ci sëriñ si. dana wax jafe ngay wax ci dëkk bu mel ni Sénégal te dugguloo ci église bi ndax euh, lépp yar ak teggin la. te ku mhm. wax yar ak teggin dugg nga ci alxuraan ku wax yar ak teggin dem nga ci mbokk mbokku chrétien yi. ndeysaan ñu yaru lool macha allah ñu ngi leen di ziyaara ñoom tam. Mhm. julli bu amee fii dafay mel ni ñoom itam wax dëgg yàlla ci la ñu bokk. te sax ci lañu ñu bokk. moo tax ndoy ma doon wax ne. gis nga suñu tarixa yi ma mami Linguère tarixa yi li muy arrangé bari na de torop di da ngay rus a wax ne man laa laayeen laa nga ne man laa laayeen laa dangay ngay rus ñu gis la ngay def lu lu ñaaw ndax bàyyi laay xamul loolu maam raan xamul loolu ñi fi ne tey sëñ Ablaye ñoom xamuñu loolu macha mm, mm, allah mm, nga dugg dëkki Seydi Hadj Malick si Sy di nga gis ne foofu ñu baax rek a fa ne mm-hmm. di nga rus ne yow taalibe nga ñu gisee la neneen boo demee Njaasaan itam da nga rus yenn yi mhm. dëkki maam bu kunta doo mën yenn yi moo tax ñun macha allah Sénégal yàlla daf nu defal jàmm joo xam ne mhm. dañuy ñaan yàlla mu yokk <coughs> nangu rek waaye bu ñu dikkaatee ci na nattu nangu rek léegi saa itam ci biir natt yu ñu tooñantee ndoy baat mhm. ci biir nattu ma tooñ ndoy ba ma tooñ mami lingeer yàlla daf may teg nattu ma fàtte ne sunu borom moo dikk daa dee jiiñ mami léeg mën na fekk ma bokk ak mami ndey ak baay daal di koy jiiñ loo xam ne yàq na diggante yàq na askan mhm. moo tax te itam ñuy wax ne yàlla nee na ku yàq ku yàq kër ku yàq askan mhm. mu teg la loxo mhm. teg la charte teg la yu mu la war a teg macha allah ñu bokk bureau léegi ndoy baal nga dikk léegi dara dal la léegi nga ni Eva la de man xamoon naa ne lii dina ma dal te booba boo gëstoo tuuti ànd ak dal di nga xam ne nattu suñu borom ma suñu fit yi bu muy teel a dem nanu réglé moytul koo koo tooñ nga tooñ nit mami mu leer ko ni ko su wéetee ci uh-huh. néeg dina xam ni daf maa tooñ uh-huh. ci fi ngay bëgg a dem ma ni ko baal bàyyi naa la ak yàlla te muy dëgg koy xeeb rek mu doon metti man la bàyyi naa la yàlla uh-huh. xam nga boo ko waxee ku ku kanasu ne évatra danaan demaguñu ca ëttu yàlla voilà c'est ça te lépp fii la ñu dem ba ci kanam ñu gis ñu dem ba ci kanam nga gis natt di ko dal la ilaha illallah am na nit ñoo xam su la nee bàyyi naa la yàlla ragalal ah tooñ nga nga leen tooñ di ko gis te di nga dem wëriwaat leen pour baalu leen àq mm-hmm. tooñ dafa baaxul dëgg la da gis ay nit yoo xam ne ñi nekk fii ci dëkk bi di tooñ nit ñi dëgg la kenn waxu leen dara ñu bàyyi leen ak yàlla mm-hmm. dëgg la seetlu rek dëgg la seetlu rek mm-hmm. li yàgg déggoon ñu naan yàgg loolu loolu rek bàyyi koog yàgg ndax yàgg li naan yàgg bawul dara. xanaa mooy waral ñu naan diw dafa mel ni ku tooñ wàlliw. voilà loolu la. cee loolu la da gis nit nit koo. xam ne problème sur problème. problème sur problème la nekk soo ko toppee ba mu topp. Uh-huh. am na ku mu tooñ. Uh-huh. tooñ dafa baaxul xanaa xamul tooñ yooyu tey jii. Uh-huh. mën nga am sa jabar nga am sa jabar. jabar ji am jëkkër joo xam ni jëkkër ji nattu la mhm. jëkkër ji di ko tooñ di ko tooñ di ko tooñ di ko tooñ ko xam nga jëkkër joo xam ne bopp ko ñoo bopp koñ nga seen ko fa te nga am sa dignité de femme sa fierté de femme saa bu xëyee toroxal la ànd ak xale bu ndaw nduy ban nattu xeetu nattu yi ngay bëgg dem metti na loolu noonu waaw ku góor gi dina dem ba yàgg di gis ay natt yu koy dal mhm. ndeke jabaram ja ju njëkk ja yu bon ya mu ko daan def torxal ya mu ko daan torxal dëgg la moom la ko yàlla di mbugale fii ci biir xam nga ma fàttali dama mës a gis benn jigéen ju baax macha allah yal na ko yàlla defal jàmm du ñu tudd turam bi mu sonnee ci sëyam doy baan rongañ yi dañuy wàcc ci kaw dënn bi mu ne jëkkër ji comme man dama sonn ci kër gi wax dëgg yàlla maa ngi dem dem bu ma gënalul daal di koy ne waaye fu mu nekk nii gannaaw bii tableau maa ko moomoon xaw ma ban meuble maa ko moomoon jox ma ko ma dem ne bëgguma fi dara. Mhm. génn ak ay jooy yu metti mu mel ni yenn xeetu jëkkër yi bon yi ndoy baan ñu naan mhm. nattu la dañu lay jallax ca mbedd ma te bëgguloo génn ca mbedd ma ne am na jigéen yi bare tey mami mhm. ñu ngi génn ca mbedd ma bëggunu woon génn ca mbedd ma mbon gi seen jëkkër bon xelam demul ci yàlla moo tax ñu génn ca mbedd ma ndoy baan mais tamit jigéen ñooñu dañu war a nangu ne sëy bakkan ak waro dàll ñooyam dafay jeex du daggee mu ko fa neex borom ndax tàqali ko moom ñaar yi moo ci am dëgg la ndax sëy bi yàlla dina ko takk dee nañ ñeen fukki guddi ba pare sëy bi di soogay am mm. waaye tas ga itam noonee lay demee mm. am na ci ñoo xamante ne keroog bañ gàddoo seeni bagage di dem lañ gën a bëgg sëy ba waaye nattu ba ñëw na dëgg la àpp ba mat na dogal ba dikk na faaw sëy bi jeex am na ci sëy yoo xamante ne nii bu tasutoon yéen ñaar kenn dina ci teñ ji moroomam yii dëgg la te bu sëy ba jeexee ngeen continuer di dund dëgg la am na ci ñoo xamante ne gàllaaj gu bon dugg na fa ba pare li ndooy baan wax sànq ne am na ci ñoo xamante ne hmm. yàlla wàccul jëlub loxoom doo ngàdd kenn nattu ba wàcc ci sa kaw dalay boole kay ki nit nit ña nag da caa am nituk safara am ci nituk am ci nit ku baax am ca saytaane dëgg am ca iblis moo xam ne xëy na sol garaam bu bam hmm. tagalu def musóoram ñëw ne la tey dama lay yàqal am na ci iblis moo xam ne xëy na tey def ma mami jóobam mm. ñëw taxaw ne la dama lay yàqal mm. dem na ca sëy ba def na cay gàllaaj yu bon def na cay gàllaaj yu bon ba yow boo tëddee mm. musiba yu bon ya ngay gis boo fa jógewul sa bakkan xaj na ci wala bakkanu ko ngay sëy rek nga nattu ba wàcc na parce que nattu booba waroon a jeexal sëy bi mm-hmm. sànq ndooy ngi wax lu am solo mm-hmm. nga di ko laaj mm-hmm. xam nga da ngeen ubbee woon ci tàmbali ba lu am solo dafa am benn sama maam dafa ma mus ma dafa am juróom yoo xamante ne nit du ko def ba ci ndam juróom yu nit du yoo xam ne nit du ko def ba am ci ndam. mu di ban ak ban Diop. ma ne ko ban mu ne ma génne sab aaw génne sab taaw. Mm-hmm. fase sab aaw. barke nuyu na la waaye fayuloo ko. déet jëmbat mboob. Mm-hmm. tooñ ku la mën cib àll. Mm-hmm. toje xandeer gis nga ndaa boo ko tojee ba pare xandeer yi lu mu la mën a jariñ xanaa xoos def ci ndax eh, ci eh, jumbaxub eh, liir mhm. waaye mënu laa amalaat beneen jariñ mhm. loolu rek la la mën a jariñ mhm. juróom yooyu kenn du ko def ba am ci ndam gis nga senegal ñi ngi fawee lu garaaw bàyyi naa la ak yàlla dëgg ci xolub kam jóg bàyyi naa la yàlla bi gën a garaaw nag mooy bi nit ki mën a taxaw faj ko mooy ban tooñ nga ma man wala def nga ma lu ma naqari mën na ma ànd ak mami famille ñëw sa kër duma la ba nga ne waale waaye ma taxaw ne la banaa la ak yàlla tamit dëgg dafa am benn waay boo xamante ne man boo tegee foofu damay yokk rek xoromal nga dem xoromal xam nga xam li gën a rafet mhm. mami mhm. bokk na ci nga mën a faj lenn te fañuloo ko eh. te ko eh. euh, da nga ma tiital de man dugguma ci yooyu da nga eh. ma ci génne ndoy baan na nga ma bax li nga tudd léegi bokk ma ci dugg soo reenaa ca bay jule euh, euh, ba baalal ma ndoy baan dimbali ma man sama ko du ñaan la ko ñaan na ma baalal li ngeen xam nga li gën a rafet ci àdduna mhm. mën na dikk mbéj évatra ba nopp yëriir gisal nga xool ko daa dee defaru ba jekk daa dee dem boobu dimension yal nañu ko yàlla may dafa am dafa am jigéen joo xamante ne waaw man dama ko naw du ma tudd turam mais dama ko naw dëgg la man dama ko bëgg macha allah man dama koy dund dëgg la man tey su doon góor moom wala moo waroon a jébbalu ci moom ma jébbalu ci moom bu jigéen doon jébbalu ma jébbalu ci moom dëgg la te pourtant sama nawleb jeeg la sama mbokk mu ma jege la <laughs> dëgg la dafa toog ci digg nit wu jëm génn mbéj ko ubbi àdduna bépp di seetaan mm-hmm. su ca waxoon rek Sénégal ŋàbb ko presse bi bind ko ñëpp waxtaanee mm. mu ne sigget xool ko ba seppale ko waaw faxasu ñëpp toog di ko xaar mm. naan bu jógee toj feet bu jógee jubali ca jëkkëram mu ne bëret da jël ay bagaasam ba mu jekk dem dugg ca biirum néegam daa dee tëdd toog ba xolam dal mm. mu sangu ba set. Mm. sañ sa waat ba gën a jekkaat na mu meloon. maa la wax génnaat ñëw rombaat ko ci digg ëtt bi. ku lay toroxal dee ko dox la muy dox ba wax ja jeex. Mm. mu ñibbisi waaye yaakaar naa ba mu dikkee tey saf na ca ka ko defoon. dafa am benn sa buñ ma musa nettali ñu ne ma waa ji dafa ñëw mm. fekk benn kilifa gu mag. dëgg la yar ay copine xaw ma ay ginaaram ba pare. waaw. ba ginaar yi màgg xam naa bu doon jamonoy tey brahman lañ koy wax. mu dikk tonni xaaj bi bépp sàcc ko. kilifa gi ñëw daal di xool xool xool ñu ne ko diwoo ko sàcc mu ne kii daal banaa koog yàlla. ki sàcc sama lii banaa koog yàlla waa ji xëy rek yaram yëpp sax ay donk ci mu lijjanti lijjanti def leen lu nekk mënta fexe ba mu deñ xam naa dafa waxtaan ak mag mag ma ne ko nee na bàyyi na la ak yàlla waaye da fay dellu sàccaat la ca des boo ko defaatee xëy na du la ko mën a jéggal wala du la mën a bàyyi ak yàlla mu delluwaat fa sàccaat la ca des kooko ne nag léegi day dem fajali ko boppam bi mu ne day dem fajali ko boppam ci la dunq yooyu yëpp wàcc yaram wa gis nga at pour war la ne la gis nga boo bàyyeeg suñu borom suñu borom fajal la mais imaan la dimension la laaj <laughs> pour que nga gis loo mën a faj te demoo ca saa si faj ko dëgg la tam moo ne xanaa xamoon ne dafa metti ci jamono bi ñu la koy def mm-hmm. waaye cay boo bàyyee fay ngay ñëw dëgg la moo dàq téeméeri junni yoon wallaay man nit day taxaw jàkkaarloog yow xool la ba nga seppali ko mu tam la dëgg la lu mu ci jublu yàq la ñu bare taxu na na ñu xam nga kooku itam mami mami moo tax nattu yi mhm. nattu yi ndoy baan ni mu wax nattu yi dafa yaatu jeex nga dëkk ci kër dëkk ci koñ ñu jiiñ la dëmm tam la ko mhm. mhm. nattu boobu dal sa kaw foo koy waxee xam nga lu gën a metti lu gën a metti xew am ñu bâche bâche nit ñëpp ne tirim toog ci ñi lay tam nga gën leen ci lépp wallaahi fa nga taxanee ñoom fa lañ fortaatoo ndax la nga am ca lu baax ñoom ca lañ wut la nga ba baax ca déggal li ñu taxaw ne dañ lay tam dëgg adduna yëpp fekke mm. nga mënoon a rayanteeg ñoom. Mm. nga mënoon a xëy dem ca procureur ñu ñëw ramas leen ñoom ñëpp yóbbu. Mm. nga egg ba sa kër sangu ba set jàpp ba sell julli sa ñaari rakka. Mm. ne banaa leen ak yàlla. waaye yaakaar naa boobaak nag ni nekk ñu ci jàmm de nañuy xoolaat li ñuy jëflanteeg jaamu yàlla yi mm-hmm. gis nga li yàlla di def ci doomu aadama mm-hmm. def ko ci bërëm bu mu riis defu ko ci boroom juddu bu rëy. Mm. defu ko ci borom taar bu bari. dëgg defu ko ci borom poos bu diis. dëgg yàlla dafa bind jaamam yi ba pare am na ci ñu doyadi. Mm. ñu sàggan. Mm. man damaa ragal ko xel ma dem te mu soli daal na nga seetlu bu baax li ma lay wax. léeg-léeg nga romb ko xel mi dem mu sol ay daal léeg-léeg nga romb borom bu mu woyof lool. nga jëflanteeg moom teraanga mu woo la mm. wax la loo xamante ne boo ko denc ay at ci kanam di nga ko gis wala mu jox la loo xamante ne bi bisub keroog ngay gis ne say mbir commencé naa xam nga xam nga foo foo ñuy yóbbu nañu moytu tooñ xam nga Diop yaa neex a waxtaanal xam nga foo ñuy yóbbu ci maandu te rek mm-hmm. waaw nanu nanu maandu mm-hmm. bu nu mandoo rek yàlla leeral suñu yoon waaye mm-hmm. boo manduwulee day mel ni soxna Eva mi dem kër Kumba sire rek dem ca kër ga lu mu gis doomu diw dee doomu diw nii la mel doomam bu jigéen ba nangam la mel man ni eh, nijaayam ba nang yàlla daf lay déglu ba nga noppi mu defal la ji bu baax ak ay ci ay package yo <laughs> de surprise yo du xam xam nga nag mu defal la package bu baax daal di la koy koni ah, ah. envoyé la ko mm-hmm. la nga nettali woon ci biir këru nit ki yëpp mu defal la ko mu defal la ko yow muy sa nattu mm-hmm. yow kese boo toggee sa diggi lal di nga xam ne la nga waxoon kër Kumba Siré moo la mujju daal mm-hmm. moo tax nu yaraat suñu bopp bu baax a baax euh, inspecteur balaa ngaa dem jéeg a ngi sëy ci biir kër itam ndax message yi danoo bare mu amu fa doom nañ ci taxaw bu baax amu fa doom lu ne lay dégg léegi saay sax dañuy daal dee teg dem indil la ñaari wujj maanaam nga nekk benn ñaar ba ñett ñett ya faf yàlla mayu leen doom ñaar ya ca topp yëpp amuñu doom xam nga ne kon loolu ndoy baan nattu la mm-hmm. waaye nitu simple yi ca kër ga njëkke bu mel ni Eva mm-hmm. daf laa yéene woon nga wujje faf nag ba nga wujjee sax yow ci nga dégg jàmm ndax léegi saa yi wujje dana tax ñenn ñi dégg jàmm de. waaye nag pour ma sàppaleel la. sàppalil ma kon kon ma beneen <laughs> pour ma wax beneen bi sàppalil pour ma sàppalil la. xanaa xamoon ne léegi léeg ñu di la teg natt boobu yàlla ubbi ci say bunt yow. dëgg mooy takk ndeer nga bëggoon. Ah. ñu indi la ay wujj wala ñu lijjanti ba tas sa sëy keroog ba nga tasee sa idda jeex nga duggaat ci say jur fa ay seex. ak ay dëgg. ñeen ñi ay triplé sax la ñuy jur maa la wax yàlla mën ndax yàlla la mu la dencaloon ah. xanaa xamoon ne am na ñoo xamante ne góor ñoo xam ne ndoyu baan mës na ko fi wax bu yàgg ah. wax jooju mi ma tëye ba tey nattu baa nga dal seen doom ju góor moo dul am doom wala moom la ay kawasam tooy allahu akbar ñuy wut jigéen ñu teg nattu bi dëgg la takkal ko benn ñaar ñett ñeent yaa ngi ah. xaaw yi sa sutura mu gedd daa dee ndoyu baan mii daa dee faxasu ndoyu baan mii fekkee na fekkee na histoire bi may wax waa ji tëj nañ ko 10 ans jiiñ ko viol wax nga ko fi de rakkam bu jigéen ak ko jiñ mm-hmm. ndax affaire miraas waaw waaje ba mu génnee yàlla da koo natt la ko yàlla bindee tuurukaayu ndox rek la te góor la waaye ba mu génnee moom régisseur ba ca boppam moo gën a jommi mm. ndax xam na ne waaji moom mënta violé kenn mais bi mu ko laajee lu tax daf ko ne nattu la bu ma suñu borom teg dama koy tëdd ba mu jeex mu ne ko ndax xaw ma sama dund gi des na juróom fukki at wala déet su fekkonte ne damaa nangu li ma sama sœur bi doon def loo kon man lii la sama juróom fukki at yi ñëpp dañuy xam ne du ma góor waaye bi ma nangoo nattu fukki at bii su ma ci génnee mm. li des sama àdduna mën naa ci am leneen mami soo waxee loolu damay taxaw ci ñi nga xam ne tey doon dimbali nit moo leen bàyyi prison de atteb xeex dimbali nit moo leen bàyyi prison yóbbu atte xeex moo leen bàyyi prison mm. yëg dara te nangu ñu ko waxee ñu daal di leen ne complice nu moo leen bàyyi mm. prison ak loo xam ne tëj nañ la rek ci ci au feeling ndeysaan saan nga waa loolu may ñëw ci loolu waaw bismillah ndoy gis nga soo juddoo jigéen soo juddoo euh, yàlla dina dogal ci yow ko ni yow kii kat dina am ñaari jëkkër wala ñetti jëkkër balaa mhm, faatu mhm. dëgg la baal maanaam kii dina sëy moom ñetti at kee dina sëy moom fukki at kee dina sëy moom cinquante ans daal di faatu mhm. yow lu yàlla bind na ko kon boog dogal la lu yàlla wàcc ci yow que ni yow di nga sëy ñetti yoon doog a mm, ngeen mm. am na ñoo xam benn yoon la ne war a sëy yow tam góor yàlla dina dogal ci yow que dinga am ñaari jabar ñetti jabar ñett yooyu yëpp ay ndogal yoo xam ne su ñëwee na ko nit ñi di nangu mm. que ni yàlla moo dogal lii mm-hmm. des fois nga gis nit dem prison comme ni nga ko waxee ndogal su fekkee gi nga politiciens yi ngay seetlu ñi la wër ñooy ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo lay fal mais ñoom ñooy nekk sa natt ñoo lay këpploo kees. ñu tëj la ci kaso bi. nga gàddu lépp ñu toog seen biir kër yi. comme ram baax la mu mm-hmm. moo tax ku ci yàlla fal na nga def ndànk nanga def doucement xool sa entourage xool nooy doxale mm-hmm. ndax yàlla fal la ci quatorze millions ñu jël la ci yow def la ci premier ah. ministre mm. ñu jël la ci yow def la mm. président mm. Ah. ñu jël la ci yow def la ministre ñu jël la ci yow def la directeur de société te gënoo ñi koy ñi ñin ko deful dëgg war ngaa def ndaag xam ne yow yàlla dalaa nattu yàlla dalaa nattu boo tax ñu fal la def la ministre ñi nga xam ne tey jii dañoo nekkoon ministre ñu war leen a génne nanu ko nangu remplacer leen ku ko ci nanguwul rek bëggoo réew mi. dëgg la am na ñoo xam ne dañ leen di remplacer ñu mer. Mm, mm. pourquoi ngay mer fa a cinq ans nekkoo man de boobu question bu may posé wu la. yow nga doonoon dara doonatoo ko. ba nga doonatulee ne tey laay wax. dama di secret tey laay wax nangam. atum nangam mag diw ñoo ànd def nangam bul fàtte yéen a àndoon. ba ngeen di ànd nag juboo ak bokk xalaat. ci loolu moomu moo taxoon loolu gor gor du ko def ku koy def rek doo gor. Mm-hmm. loolu mm. ñu teg la ci place mm. jëlee la fa tax ngay génn ay secret d'état mm. képp loolu ku ku koy def rek doo gor gor du def loolu góor day nangu ndagoolu yàlla wallaahi maa nekkoon hmm. na fi sama morom waaw mais pour mi da a nangu moo tax léeg-léeg nga tase ak ministre yu libre dafa da ngay dox seen daal di faxasu rek dem ñu defal la say côtelette ngay tukki tukki gu dul jeex dafa am sa bopp ànd ak njaboot dafa am sama benn ah! yaay nee dafa tukki ànd ak borom këram waaw nee na daal mu gis ne ñoom ña nga ca biir dëkk ba daal di falaay tu falaay nee na mu jékki-jékki ne gees na borom kër gi waa imagine nga yow bu la nëgëni si fekkoon tey nga yor benn responsabilité rek ca réew ma <laughs> nee na jëkkër ji ne ko ah mu ne ko ah kon dund gi ñuy dund dund ko ko am nga moo tax man ngeen di wax nii ma ma yokk rek am na ñu yàkkam ci seen jëkkër yi dem retraite à la à la à la ba ñu mën a a dund dëgg la mais am na ñoo xamante ne ñu ngi xëy di nooyi ci air bi mais dund ñu allahu akbar lii lii ndoy baan di wax nii ah. ndoy dafay faral di wax naan lekkuma ci cere ji tey ma xëpp ci suuf wala lekk naa ci xam nga yuus dafa woyoon mu ne hmm. Euh, boo lekkee ba suur war ngaa gërëm ko duggoon ca waañ wa dëgg ndax yow xam nga lu tax hmm. boo lekkee ci ndab it ubal ba mu jeek sa teraanga la hmm. boo lekkul ci ndab ubal ba mu jeek sa teraanga la eh. waaye yow lekk nga ci ndab li ba pare rek ndab li dootoo ko ub ak fi am ndab dootoo ko jekkal pour lan ak fi am yow ba ngay dem di jàngi école ba nga doon jàngi ne ko foon yow kese da nga faa nekkoon ak ay nangami personnes yoo xamante ne diplôme bi nga doon wuti moom la ñuy wuti. la la ko may moo leen ko may. seeni waajur dañ doon fay comme yow ni sa waajur doon fay. liggéeyaloo yàlla lu tax mu yëkkati la ci treise million huit cent nangam sangam. yi nit mm. teg la ca kaw. Mm. waaye ñooñu itam tooñuñu yàlla tooñ gu toll ne ñoom mm. ñoo war a toog ci suuf rek. dëgg la xam nga sama maam daf ma ne woon nguuruk Afrique xam nga lu ko mettil. yàlla na fi te wér ay bàyyil ba mu jox ma sama xarum tabaski bi maam yow say say mbir dañ koy daf la ne woon nguuru nguuru daf ma ne nguuruk Afrique xam nga lu ko tax a metti ma ne ko ah mu ni ma ay picc yu tingaw mënte lañ bi ñuy tungoo mante nag saako bi cat li dafa féete ci kaw ñu takkee ko ci kaw bi ñu eggee ci kaw dañoo waroon a jéem a dëpp saako bi eh. wala bu ñu bëttee benn cat ba pare ñoom ñëpp ñu wàccaat tolloo hmm. ci suuf ñëpp mën ciy dund mhm. waaye nee na ma ñi ñu tungoom ba ñu egg ca kaw ñoo naan nongu ci kaw mhm. bàyyi nag askan wi ñu nekk ci suuf mhm. bu ñu jooyoo jooyoo jooyoo ñu tibb ci kaw xëpp leen ñu commencé lekk bu lekk gi nekkee ci suuf nag kenn du wax ñëppay sëgg di lekk gi jeexee ñu tibbaat sottiwaat leen mais xam nga lan la ku gëmul yàlla yaa sonn tuñum gileem dafa lang waaye waddul yàlla mayewul dëkk ca dafa abale ah, bu la abalee rafetal ko bu ko jëlaatee gëmal yàlla Diop yàlla na nga gudd fan yàlla nga am fan amiin amiin te yàlla da nga wax ne ba tudd président Ndoye Bane hmm. les africains et le pouvoir itam boobu nattu forcé la dëggantaan nga nekk ci boppu réew nekk ci bopp réew mi sa waxtu wàcc jot nga ni doo wàcc mooy nattu bi gën nattu forcé hmm. kooku kooku nattu forcé itam xam nga nattu am na mais forcé nattu itam am na jàpp hmm. constitution ba jàpp yëf yi ba fuwe leen constitution ba di moduler ko indi rek ba indi fa xeex indi fa xiiroo indi fa ŋaayoo man léegi saa yi ndoy baan damay rus a nekk africain. non non c'est vrai. wax dëgg yàlla parce que boo demee ca dëkku tubaab yi noonu danoo xam ku wàcc nga gunge keneen ka xoolal barki Dembo Ndiaye la xew ca France. François Hollande ak Gone ah gis nga. Ah, yaa neex a waxtaanal mais loolu mais loolu ma mais. E-, élégance boobu exemple jarul ñuy dem France fii Sénégal. déedéet waaw da nga may fàttali rek jamonoy Abdou Diouf. voilà fii ah, ah, Sénégal déedéet jamonoy jamonoy ak ak président Abdou Diouf nga ñëw tam ba tey ci ci président Abdou Diouf mm-hmm. bi mu bi mu woowee sunu sunu maam Abdoulaye Wade aussi waaye léegi sa itam mm-hmm. euh, li ba tey ndoy baan duñu teggi yoon bi dañ koy dund en Afrique nan ko wax tegee xeex yi bëri yi am ci biir dëkk yi mm-hmm. bokk na ci président bu ne wàccul barki boo Ndiaye li xew Banjul macha allah yàlla yàlla yàgg rafetal sunu ay diggante xoolal Sénégal li mu dox ak Banjul président yaay Yaya Jammeh itam xamuñu fu mu féete <laughs> waaye ñu ngey ñaan yàlla yàlla defal ko jàmm parce que àdduna ni waaw bu nu dee seetaan ñun xam nga wax jàmm ñu ngi koy ziyaara yàlla defal ko jàmm fa yàlla moo tuddoon ne bés ni ki tey nii du ko fekk ca fa mu ne mu koy neex mu koy naqadi daf fay jóge munu ca dara <laughs> yàlla la c'est que problème mooy dafa am ay président yoo xam ne nit ñoo xam ne sax ñooy fekk nat nattu tegee ñu jël ko yanu ko ñoom ñooy jël mm-hmm. yàlla tegule nattu ah. ñoom ñoo ko teg seen bopp dañu koy laxasoo tam dañ koy laxasoo mais yàlla dimbali nañu ba ñun suñu président yi am nañu mat gu toll ni ku ci mm. gagné nga jël say bagage dem keneen ñëw kooku mm. moom fii nii kenn mënu ko fee def fii Sénégal dëgg la que ça loolu am mukk voilà loolu moom nañ ko sant yàlla parce que réew mi di Sénégal dafa réyul mm. ñëpp ay mbokk lañ koo fi mm-hmm. saaga sa bopp nga saaga mm-hmm. dëgg la koo fi wax lu bon sa bopp nga ko wax réew mi soo ko naree taal day tàkk sa kaw mm-hmm. Allahu akbar Sénégal gii soo fi naree indi coow yow sa bopp yaay am coow. mbaadu yaay mujj sonn. yow sa bopp yaay mujj sonn. ba noppi xam nga lu ma ci neex ndoy baan. Mhm. allahu akbar dañ ci dul bàyyi. Sénégal mooy dëkk boo xam ne mu lay neex mu lay naqadi da ngay am kilifa. ah fuuf nu nu ce que est-ce que seetlu nga. su ma fi taxawoon léegi ne nu ma neex laay defee. balaay ngoon ñu yóndee ma ñetti kilifa yu ñëw wax ak man. te par force damay yem. dama ni allahu akbar dama ni c'est beau macha allah. ña lay yemale. waaw du nu doon say mbokk de. nee naa la fi am na un jour ma sol fi benn <laughs> solin bu doy waar. tol Pedro. tol fi Pedro di jaay ma def saay saay. c'est ça ñama woo ña yemale ma. te man xam nga faale ma. xoolal ñama woo yemale ma. nee na bu gëtuñu ko gis ci waree. kenn du ci sama mbokk say jigéenu bopp. kenn du ci sama mbokk. sama ay nit lañ yoo xam dama leen a xam nii rek. ci ci ci ci à travers euh, liggéey bi may def. ñu ne la la ay mère de famille. dëgg la ma sama ay nit lañu depuis des ça fait des années rajo bu ma dem wala média bu ma dem ñu ngi may topp. ñoom woo yow solo bon li nga sol ci télé pour la xas ma ba ma ràpp. ma madam Jum. Hmm? ma nga ma nga màkk sax. dëgg la moom moo njëkk a woo xas ma. mari moom dong la dem Dervis woo ma xas ma ba ma tooy xeeb. ma defin ne noonu la Sénégal kenn moomu ci sa bopp ma xas ma fa te ñoom ñëpp kenn xamu ci sa moom lu ci neex mooy Sénégal kenn moomu sa bopp soo dee soo dee soo nit ku baax wàlla ma nga soo dee nit ku baax ah d'accord soo dee nit ku baax ba tey ah? moomoo sa bopp moomoo sa bopp waxuma la balaa say mbokk di egg ci yow rek mm. ay jàmbur mm. Mm. ñoo lay jël ñu la bëgg nag ñoo lay jël teg la ci yoon dëgg la su fekkee yow da nga doon nit koo xam ne yow faale woo faale sa baay dëgg la faale woo sa yaay faale woo sa mbokk da ngaa ñàkk jom. Mhm. kooku euh, jàmbur yi. loolu tam loolu tam du du xeetu malédiction. wala loolu nattu la. nattu boo xam ne yàlla teg la nattu boo yoo xam ne yow faale woo sa yaay faale woo faale woo kenn. mais boobu nag nattu la boo xam ne bi nga wax sànq la mooy nattu la boo xamante ne. xam nga ah. dafa am loo xam ne. yaa ko teg ko mm. ak loo xam ne moo. yàllaa la ko teg. li li la yàlla teg ak li la teg sa da ngay ñëwaat. dafa am loo xam ne nit kee ko sol ak lu sol nit ki. cat dafa mus sa ñëw ne ma waa man daal man xam naa ne man temps yi man cat damaa jàpp ma ne ko cat jàpp yaa jàpp cat. Ah, kon dinañu neex rek yow sama rakk ji du ko jàpp ah, jàpp cat chaque jour nga jox leenu fenn kon dinañu neex rek ñu xëcc cat ñoo di ko ba mu ñëw ba mu wéer a wéer a wéer ak musoo xam ma fu ma ne ah? ma mbaa déedéet dugg la du la dugg du la dugg bismillah yow dangaa judd fekk sa ndey sa baay am kilifa waaw nga juddu fekk ba ñuy jox sa yaay sa baay dañ ay kilifaa ko fekke dëgg nga judd ay kilifa tudd la waaw nga juddu di gis sa yaay di am kilifa lu muy def diisoo ceeki kilifaa bu baax nga màgg ne li xeet ne man du ma am kilifa mm. sa maam ne na réew mi ñoo fi gis seen yenn yi gaaw rek mooy ñi seen yaram seexluwul dara ku seexluwul nag mooy kamul kilifa déggal li ki ne laam nee na woon nu ma neex laay doxe nu ma neex laay solo nu ma neex laay waxe fu ma neex laay dem mm. lu ko mu dal la allah bu ko teg kenn teg ko sa bopp bu kenn mere kenn ku nekk xoolal la ngay jëf boo koy soog a dëgg la dëgg la Abdoulaye nag mi ngi yëgle boppam Abdoulaye waaw mi ngi yëgle boppam sama sama goro bi ci kër gi te sañ ko wax tey da nee na ma keneen ku fi wax ne sama goro ga doo ñibbi sa kër tey suba de dafa xëy nee na ma moom dafa am daal leer gu nekk ci moom mais bala muy feeñ day denc soxna soxna ba pare moom waaw léegi nag ma ne ko dinaa la ko bokk groupe il faut que ma bokk ci ndax xam nga Aboulaye sama yëfi bopp la. dencul dara waaw. dencul moom. Aboulaye dencul léegi li ma jaaxal nag mooy. dama xam waa aawa ñaareel ñetteel ñeenteel yi góor yi dajale nattu la. ndeysaan nattu la yor jabar yi bari nattu la. nattu la nattu bu baax la yàlla di tegu. waaw waaw non non mais mais am na ci nattu boo xam ne yaa ngay nattu jigéen ña. ndax yow bu fekkente ne yow sa dara matut xam nga yow yaa ngi yuut muy ta nga ne da ngay wàccu ah. nga dem dajale ay jigéen ñoo xam ne ay jéegi neen lañ dajale leen ci kër mm. te kenn mënu cee dem mm. yaa nga leen di nattu waaye nag seen àq da dal too waaye nag waxtaanoo waxtaan waxtaan ak Tayib Socé moo neex Diop ma ñëw bàyyi leen ngeen tàggatoo ak a neex dama ko mës a dégg loolu war na tollu ci ci ci ci fukki at mm. léegi ah parce que jamono jooju ñu ngi woon 2STV nee na góor gu ci dem jël benn ñaar ñett ñeenti jabar mënuloo leen dara bu ëllëgee lu nu def bu ëllëgee yàlla dana la woo. bu ah leen di àtte dana la bu baax a baax am na ñoo xam ne itam wax dëgg yàlla ni nga ko waxee dañuy teg natt bu métti ba pare ndoy baan jigéen ñi ak ñoo bare jom ak ñoo bañ a génn seen kër yi. ak ñoo sonn ci seen kër yi te rus a génn ndoy baan li may wax xam nga ko da ngay gis ku la woo ak i jooy. am na ci soxna soo xam ne maa ngi koy ziyaara bu baax a baax dafa ma a jooy ndeysaan jooy mi ngi may dégg te xam na ne moom laay waxal dikk ba ci man sama jëkkër ni mu bonee Eva man ka mu ne ma wallaahi du ma xañ mukk tàkkusaan bi may toog sama biir kër gi sama doom yi di jël soxna wala ñu leen di maye may ñëw di fekk si beneen jeeg ci biir kër gi mu may dalal. wallaay wax na dëgg mu ne bu soobee yàlla du ma ko xañ. Mhm. est-ce que gis nga dimension boobu. mais nag yàlla saa bu yeewoo ma ngay jooy. mais saa bu yeewoo am. gis nga jooyam yooyu muy jooy. waaw fi mu toll nii nattu lay mujj dooni ca ko góor ka moom nag moom yàlla nga ko dencal nàkk bu saf sàpp ak suukar waaye il faut mu xaar nàkk gën moom du ma la ne déedéet pour yàlla xam may daanale mhm. léegi saay ci góor yi yàlla na leen di dal lu ngeen ñu teg nattu rek yàlla na yàlla fay leen te fa lay mujjee <laughs> léeg-léeg nga gis ku ñàkk xeetu million yoo xam ne uh-huh. mami xam nga ne li mu ñu teg a tax mu ñàkk ay million <laughs> wala ñàkk ko ba mu bare dugg ci benn mbir ne la ñu ne la bato ba dikk na nga uh-huh. jékki-jékki ñu ne la bureau ba lakk na yàlla nañ ci yàlla musal waaye xam nga mami tooñ dafa baaxul nañ ko ak suba ma bàyyi nga tàggatoo. léeg-léeg wala ki jékki gis ko hospitalisé. wala ñu sàcc la ñu ñëw xoola tàng nga tàngoon ci biir kër gi di solal nit yi ñu lay yëkkati di la teg yàlla nañ ci yàlla musal waaye dañuy waxtaan. yàlla na yàlla def jàmm mami di simila ñu sàcc goodul nettali nga yor waa kër gi ci biir kër gi rek di leen dundaloo mbaxal yàlla leen dal xëyee suba jox leen si xaw mu saful suukar xëy suba rek bato ba digg ak suukar xam nga lu ma ci yow ku ñu naxee ku ñu naxee mbaay yal na yal na la yàlla naxee mbaay aywa tàggatoo delluwaat delluwaat di tàgguwaat ñëpp di jégaluwaat ñëpp di wax ne Cheikh Ndiaye Jojo ñi ngi lay jaalewaat lu baree bare waay bokk ak yow naqar wi nag ñu ngi koy bokk ak yow ku baax te xam ne yàlla moom mooy dogalee na ko neex waaye mm. yow bu fekkonte ne ci ñun la lu metti di jóge du musa dal ci sa kaw yéen ñëpp ñu ngi leen koy jaale waa Soleil Levant mm. Cheikh ñu ngi koy bokk yow xëy na jóg ñëw ba foofaa yombul ndax nag dem Espagne xëy na yombul ak liggéey bi mm. wax dëgg yàllam te demee ndaw waaye yàlla na yàlla mottaleel ko ndawam fële ca àjjana euh, nay firdawsi mm. delluwaat nag di waxaat ne Ndeye Coumba Onglerie VIP. 397 82 82. très bien 77 397 32 32 yaakaar naa ne noonu la sinon suba dinaa leen jox numéro ba mu gën a kii. ablaye bëgg rek ñu ñibbi fi mu toll nii. di wax ne Bijou Sall sa masa couture moom it mm. moo jaar fii. di santaat ñëpp ba suba ak jàmm. day ñëw. sàll la sant sàll la sant. mi ci kër gi. santu ah dama jaawale. bisu njaay bi ay xaram réer da yëgul man bisu njaay damay wujjeeg doomam mënumaa ñawal lu ma sol. xati jox Samba laay nuyu macha allah di nuyu sunu sunu rakk ji Sira Samba nu ngi leen di nuyu bu baax a baax kati jox yaa moom nuyoo bi ñu ngi lay nuyu di la sargal di la ñaanal yow sa askan yépp yàlla defal leen jàmm yàlla teral leen macha allah nga yàgg fi. di di di xaritoog ñoom Bouba Ndour di xaritoog waa kër gi di xaritoog ñëpp macha allah sa boroom kër yi tam ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax a baax moom kati jox Samba euh, Ndoye Bane yow itam dañu lay bàyyi nga tàggatoo. jekk tagal la jigul ndaanaan. ñuy tàggu ñëpp. Mm. rek euh, ba suba ak jàmm. Mm-hmm. may xaar ñi ñuy woo pale bu di leen consulter maa ngi ciy mm-hmm. xaar sama tur. Euh, pour ah. ñi war a nekk ministre daal xam naa Kouthia ñoom lay ñoom ñi ñu war ñi ñu war a fal daal man dinaa laaj Kouthia ñan ñan la ñu war a fal du ñàkk moom am na information waaw man maa ngi maa ngi déglu sama tur mais tey ngaa demoon euh, farankulaay ci wetu Cheikh Bass Abdou ah. Khadre déedéet da toog rek munoon ngaa jege sëriñ bi de mu gën a ñor di fer yi sëñ bi sëñ bi jarul nga koy la allah ku baax waaw toog rek ñi ñaan rek na jàmm yàgg ci réew mi yàlla ñi ñi ñi teg ñi yàlla teg natt bu metti mm. yàlla na leen ko yàlla teggil amiin mu gën a gaay ñi nga xam ne ñoo fekk natt tege ñu yenn ko amiin waay ah, yàlla na leen ko yàlla gaaw yennil wala ñu yenn yennil ko seen bopp te ñuy yàlla di leen xiir ci wax lu baax ak def lu baax Sénégal mën a jëm kanam waaw miin voilà kon boog ñuy jox rendez-vous nit ñi rek boo subaak jàmm incha allah ba subaak jàmm ndeysaan ak euh, xam naa du ñàkk euh, gouvernement bu bees ah ñu ngi ñu ngi ci remaniement yi yal na yàlla defal sutura ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite dëkk bi rawatina nag président de la république soxna Marième Faye Sall itam ñu ngi koy ñaanal jàmm ne xam nga jigéen joo xam ne wax dëgg yàlla dañu la jël ne jigéen yi yaay seen première daam mhm. macha allah dañu koy ñaanal jàmm mhm. dañu koy ñaanal jàmm dañu koy ñaanal salaam ak képp koo xam ne itam da nga caa bokk te du leen gunge ndax àdduna xam nga ñun ñëpp dañu nekk rek ci benn bato bato bi xeetu nit bu ne da cay nekk bato bi nag mën naa diik bu fekkee ne mami dafa am ñuy xëccee benn boor bu yàggee mu diik ndeysaan yàlla nañ ci yàlla musal xeetu nattu yi duñu jeex waaye nañ ko muñ loo sunu borom xam ne moom mooy dogal ñu ngi leen di remercier bu baax a baax evatra di remercier encore une fois maître Fatima Sall sama magu bopp Mami Linguère moom ma solo grand boubou bu rafet bi kon boog Seydi Sall yaayu Duudu ak bébé maa ngi lay remercier bu baax a baax di nuyu suñu yaay mère Sow ma nga nekk ca Sicap euh, Sacré-Cœur 1 nu ngi koy nuyu bu baax di leen jox rendez-vous suba Ndey Ami Coiffure merci pour la belle coiffure Fatoumata Coiffure mi ngi nekk ci 77 648 56 mbokk yi ñu ngi leen di balluwaat ak bu baax a baax a baax jox leen rendez-vous suba tey xajal Mamadou Ibra Kane mu ñëw wax dëgg yàlla leeral leen leeralal leen lu bare li nga xam ne euh, jot naa xew ci dëkk bi jërë ngeen jëf